mbokki jullit ñi mbokki taalibe yi fu ñu mën a nekk ñu ngi leen di yëgal ci turi alxalifa cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass xew-xew bu màgg bi nga xam ne moom lañ jublu si muy gàmmu Taïba Niassène ñi nga xam ne mooy bés bi cheikh Ibrahima radiallahu anhu juddoon muy tombeek fukki fan ak juróom ci weeru rajabil fard mu ngi tombeek ren fukki fan ak juróom-ñaar ci weer yi février weer wii ñu nekk fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi moom mooy nekk bi si gàmm gi ci Taïba seen comme niñ ko doon defee ñu ngi oo mbooleem soppe yi mbooleem taalibe yi fu ñu mën a nekk ñu waajal bés boobu xadul ko comme ni niñ ko daan xadulee waajal ko ci waajal xol yi ndax ñu nekk ay ndab yoo xam ne nii dana mën a def ay dénkaane yu jugee ci yàlla tabaraka wa taala yu nga xam ne nii sëriñ bi dana ko dénkaane foofu ak yu nga xam ne nii boroom xam-xam yi danañ ko jokkalanteeg nit ñi ci bés boobu muy bés bu tedd bés bu màgg ñu ngi ñaan tim mboolem autorité yi ñu yombalal mboolem gan ñi seen yoon pour ñëw ci gàmm googu ba yàlla matal ko ñu ñëw ci jàmm dellu ci jàmm weer la bu màgg ndax weer bi nga xam ne Cheikh Ibrahima radiyallahu ci la juddu te xam nañ ne gannaaw bu xéewal ak nubuwatu passé xéewali wilaaya moo fi des Cheikh Ibrahima nag cër bu law xéewal la gu màgg ci feeñuwaay boobu nga xam ne yàlla moo ñu ko may ñi koy sante yàlla mu nekk jumuwaay ci jumuwaay shariatu nekk jumuwaay ci jumuwaay xaqiqatu nekk jumuwaay ci jumuwaay tariqatu nekk tim gindikat ci dundi àddina bi nga xam ne nii ñun ñëpp tey soxla nañ ci ay Eh, référence soxla model soxla delluwaay boo xam ne ni nii ñu dimbale ci suñ dund àddina dimbale ñu ci suñ dundi àllaaxira kon jàpp nañ ko ca tey ba comme nañ ko daan defee mu nekk barab boo xam ne barab bu yàlla barkeel la ndax feeñu waaye bu mel ni feeñ ak Cheikh Ibrahim feeñ foofu rek doy na tegtal ne barab bu yàlla barkeel la bàyyi ñaan yàlla it yàlla jëriñ képp ku ko fa ku ko fa dikkal bi manzilin mubaarakin tunzulini wanfauna jamia aman qasadini yàlla yàlla nga ma wàccee wàccuwaay bu barke waaye yàlla nga jëriñ ci man képp koo xam ne fii koo xam ne jublu na ma fii xam nañ ne bàyyi jëriñu waay la ci fépp fu na mën a nekk na ko muxtaar alxamidu waxoon wa cheikhu ibrahimu أيضا قمر في مصر والشام ومدن أخر يقيم أو يمر نور الهدى حيث أقام الشيخ أو حيث مر ne Cheikh Ibrahim biddiw la weer la boo xam ne Shaam ak Misra ak Zul Xulayfa Medina fu mu mas a taxaw fu mu mas a romb rek njëriñ la bu ñuy jëriñoo kon ñu ngi oo ñëpp ci rendez-vous boobu ci Taïba Niassène nga xam ne woykati xadara bi yu ci bëri woy nañ ko di ko fàttaliku ahmad mahmoud bun hamdul kabir moo daa wax ne wa karrir ala sam'i ahadisa taybatin wa saakinaha mahma aradta ixaa'i del baamtu ci sama nopp xadisu tayba ak ki nga xam ne moo dëkkee tayba muy cheikh ibrahima radiallahu anhu waxtu woo bëggee nekk sama mbokk ñun ñëpp nag bëgg nañoo nekk mbokk ci yàlla te yàlla moo ñu ko def innamal muminuuna ixwatun kon mbokk googu ñu ngi koy beesalaat ci oote oote bés bi nga xam ne ki ko yàlla jagleel mooy Mawlana Cheikh Ibrahima mi nga xam ne mooy wax ne ni xaqan li jibril kasri fa inna ni wakiilu sirri sirri tayba googu nga xam ne eh, cheikhaani waxoon na ne ci tayba mawlid al barzax alladi jëlla ma abdayta min xam-xamin wa min teggiini judduwaay barab bi judduwaay barzax bi nga xam ne màgg na lum génnee ci xam-xam ak i ak i ak i teggin kooku mooy Tayba Ñaseen a taybata xatmi alxatmi laa zilta hakada wala zaala mamdudan bika albadu walmisru wala zaala fika alilmu walfaydu والتقى ولا زال فيك الجذب والصحو والسكر comme ni ko Mouhamed El Michri waxoon kon ñi ngi oote ci Tayba googu nga xam ne ñaanoon nañ ne yàlla bu mu dañ muko di nekk barabi xam-xam di nekk barabu faydu di nekk barabu ragal yàlla di nekk barabi jezbu di nekk barabu sahu di nekk barabu hittewoo yàlla bo do tal lenen luma yàlla tabaraka wa taala tay ba googu nga xamne ne qasr la ci qusuuri cheikh ibrahim radiallahu anhu qusuuri madina shaamu koosin wa taybatun wa kawlaxu qad taxiyaa bi dicri alladi min ashuril xurum la bokk muy weeru rajab ndax ashurul xurum rajab la zulqaada zulhijja al muharram kon weer la boo xam ne mu yàlla màggal la donte amul benn jëfe ibaada bu wér ci sunna ne ci weeri rajab lañ koy def waaye weer la boo xam ne bokk na ci weer yi yàlla màggal ba aaye ci eh, xeex aaye ci lim ci aaye yëpp kon yàlla màggal na ko ndax weer woo xam ne sax na ci siyeer yi ne yonent bi sallallahu alayhi ci lañ ko ëmb waaye sax na it ne Cheikh Ibrahima radiallahu anhu ci lañ ko imbi kon ñu ngi oo ñëpp ci bés boobu bés bu màgg boobu bés boobu nga xam ne li ko tax a jóg mooy xol yëpp delluwaat ci yàlla takkoowaat ci yàlla euh, dellu ci yoon yoon ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàpp ci sunnatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam jàpp ci alquran jàpp ci lépp loo xam ne nii njëriñal umma bi ci la nekk bés la boo xam ne bési ibtihaal la bési ñaan la bési tudd yàlla la bési ñaan yàlla la pour yàlla def jàmm ci Sénégal def ko ci alamil islami def ko ci mbooleem àddina bi yàlla nañ ci àgg ak jàmm nit ñi ñëw ci jàmm dellu ci jàmm comme niñ ko daan defee waaye yàlla maye ci ay tëbb ak i may yu ëpp nam daan amee ci barke gi nga xam barhaamu baaun waraun alifun thumma ha mimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan